ilaha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 moom sëñ Modou Aminata Fall di jëwriñu sëriñ Fallou mi jëwriñu sëñ Modou Aminta mu ànd ak mbooloo mi ñëw fii ci kër Cheikh Bassirou Fall alxuraan fekk fi jëwriñam ji sëriñ Ngunda Fall moom sëñ Bassirou Fall alxuraan di siyaar ci bis bi nga xam ne ñëpp a ko bokk sëñ Fallou teg ay kàddu yu sell ci loxol Cheikh Moustapha ak i mu bëgg koo jottali nag. ma ñëpp dégg ko nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. sëriñ bi nee ñu ngi nuyu njabootu lislaam gi fi daje. di njabootu sëriñ Touba di njabootu Cheikh Ibrahima Fall. nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyi ci jëwriñ ji toog. di turandoo Cheikh Mouhamadou Fadal wii. sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta ñi ngi ñaan sa borom mu yàggal ak dundam te ko ak kartanam gii moog rakkam yu baax yëpp yu mu àndal ak nun murid yi ànd ak ñoom te ñoom pas-pas sëriñ Saliou démb ci ngoon ñëwoon nañ fi yaakaar naa kàddu yi nga waxoon yow moom jërtu jéem a dellu ndax doo ko man de lu war sa diggante sa kilifa ci waxin joxoon nga nu ko mu jëm ci sëriñ Fallilou ne waxe woon nañ ko nag noonu yi nga ko waxe mu nangul la ko it nangul wu rafet bari nañu fekk jataay démb ba benn ci man Moustapha silla Cheikh Moustapha mii de wax nee na ame nañ ci ak jàjj lool amin woo xam dañ caa yeesaat peq kon li tax sëriñ Faliilu jóg moo fi yónnee si woon démb boole wax lu ak jëf lu ñu boole yaar yëpp jox la waaye tànkam yii nag tànki ngor la wala tànki gore boog ndax li fi yow ñu bari xam nañ ni xam nañ ci xamuñu lépp waaye am na luñ ci xam bu sëriñ fali woon tekk ab diir gisoo ko gisoo leen ndawam ñi toog fi yow dinañ am ak jaaxle ndax faw nga jóg ñëw yow mii te moom ñëw gi mu ñëw kaw tax a jug mooy kawoon rek mooy tànkam yi xam na ni mooy sa kilifa ndax kilifa amatul koo def muy sa kilifa moo fi am te danga koo def muy sa kilifa nag kon bu toogoon ñëwul faaw nga def yëfi kun yilif ñëw gii fi sëriñ Faliilu ñëw di la wan ni barab bii ma fekk sama barab la boo xam ni lu fi waay def rek man sëriñ Falilu nga ko dimbalee te loolu ñëpp a ko ko nangul waxtu ne ngeen dégg ci làmmañu Cheikh Moustapha Fall mii may laabire ñenn ñi naan leen sëñ Fall moom kër gum fi dem mooy taawub kër ga taawu baay nag lu waay def ci kër baayam moom la ko dimbalee te mooy taawub kër yëpp kon kër gii da cee raw nag moom ku nekk xam nga ni Cheikh Bassirou Fall alxuraan mii soppeeb sëñ Modou Aminta de ba noppi def ko muy léppam nag bari na lu yees ci yoon wi ci aw defiin muy loo xam ni la ko waral mooy dox yi nu sëñ Bassirou Fall ci yoon wi ñu bari roy ko ci nag ci ñi nga xam ni moo leen mag ba ñu jàppoon ni ñoo ko mag sax roy nañ ci seex Bassirou ba mu fekk see sëriñ bi nag ba jaayante ak moom ñu baree bare ci rakk yi ñu gore lanu sunu waajur yooyu ñu bari dalaat nañ ca baa ci sëñ Bassirou Fall alxuraan ci fu mu tegoon sëñ Modou Aminta ak nu mu ko def ñu bari jàngate nan ca rawatina nag ñun murit yi kon sëriñ Saliou yaag rakk yu baax yi nga xam ni yow la ko suñ borom beral ak sa mag yu yi nga xam ni sa cëru boppa noo ngi leen di sant ñoo ngi di gërëm ginnaaw nuyoo bi ci turu sëñ Fallilou nag ci taxawaay bi ngeen ko taxawal ci xalalam ji li ngeen ko téyel day cërub lislaam ca lislaam moo baaxoo ku ko defal rek mu def ak yow wax ak yow te moom ngeen defal nag te moom mii mooy cërub lislaam Cheikh Falilou kon nag mi ngi sant mi ngi gërëm dafa teew ci këram gi rek kër kilifaam gi di waajuram waaye kër gum dem lim wax fii rek la fay wax ndax lim doon fii la doon ci kër yëpp nag la doon ci kër ga mbàyyi kon fu fi dem kàddu gi day génn dafa nekk fii tey waxe fi wax ji waaye su fi jóge woon itam kër gum dem wax ji war naa mokk de ndax li wax fii lay wax foofa lim doon fii la doon foofa kon xolam sedd na guyu ci alalam ji nga xam ni defar gi mooy ki ci waroon a jiitu ngeen nekkal ko fi nag mu nekkal leen fa mu nekk moom ñi amu xam ñoom xam na ni ginnaaw mënuñu bis bu nekk ñu gis jëmmi sëriñ Fallilu ci biir kër gi nan jàpp ci seenub xol ak seeni xel ni li sëriñ Falilu di nuru nuru ko sori ci ñoom waxtu wu nekk teew na fi barab bii ci kër gii ndax li mu gën le du am kumpa fii mukk ci àdduna muy ab xolam moom sëñ Fallu ñi fi nekk ñëpp ak njabootam lan li fi nekk lépp alalam la kon nag rakkam ji baax ji di sëriñ Saaliw ànd ak rakkam yii ñu téyel ko ko muy alal ji toll nii bokk ci ngëneeli suñu borom yi xam ngeen ni comme alal ji day ànd koog yéen yéen ñu ko xelam ak xolam du jóg fi yéen mukk waxtu wu ne mi ngi fi yéen ndax da ngeen koo jàppal alal ji ku gënal ci alal ji rawatina nag seen melokaan yu tedd yii nu nekk sëñ Fallou bil fi ñëwee sëñ Gunda Fall mi waxe ne ni ban delloo jub dem ci waajuram wa muy Serigne Cheikh Fall mi ni wooye Serigne Cheikh Cokke nga xam ne moo jëwriñu kër sëñ Mbacke Fall wax ko ni ko sa doom ja ca lan bàyyi koo ak rakkam yu baax yéen fa fekk wax ak moom nag wax ju yaatu moom itam mu tontu tontu lu yaatu bég lool nag ca tànk ya fa sëñ indi ñu xamal ko ni ko nag ñun day faal li ngay bég ci ñun ay ndaw lan rek yun yónni kan yónni nag lam ñu wax loo def loo ñu ko ba ñu ñu koo wax des koo xamul ba ñu ñu koo def des koo mënul waaye yiw wu nekk bu dee wax yabe na na ko bi ni ñëw bu dee jëfa yabe nañ ko bin fii ñëw loolu Cheikh Abo Fall yàgg say yu neex la ci seen waajur woowee seen rakk ju baax ji itam nga xam ni moom mel na nu nekk ci nit ñu baax ñi nungu gi rek jar na ko ak melokaan wi tam wàllu ko ñi bokkal nag ndax bokk na ci kat defal sa kilifa la bëgg bokk na ca bànneexu murit waaye boo ca boolee mel ne sëriñ bi bëgg loolu nag murit yi da ciy dàqati te moo am ci cër bii kon sëñ Fallu mi ngi ñaan suñ borom yaa njaboot gi nga xam ne yéen a bokk kër gi sarak yi toog jiitu ji ak waajur yi ak yéen murit yi nga xam ni noo bokk pas-pas Cheikh Fallu ngi ñaan suñ borom taxawaay bis bii sëñ Bass Thiocké nga xam ni yéen a ko taxawee yàlla na gën a yàgg li ngeen koy defee yàlla na ngeen ko fi gën a man sëñ Bassirou Fall bi ñuy wax Thiocké bin ñëwee danoo xam ni baatum ndigal ci nga nekk ndax xam na li sëñ bi teg ci sa loxo li wolof naan law bay neexe jàngali pël danoo xam fi ñu la féetale diisaay bi moo tax yërmaande ju am ci ñun joo am ci ñun ñu am nañ ko ci yow sëñ Bas xam ni ki lay def loo mi ngi ni toog ñee ñim la bokkal nga bokkoo ñoom ñoo ngi teew moo waraloon ba muy wax kàddu ya la ngay ñàkk ñàkk teew yaa nga ca biir ca teew tudd nañ saw tur de ci turu sëñ Fallilou loolu daal bokk na ci kàddu Cheikh Moustapha yi suñ xol seet na guyyu ci taxawaay bis bii nga xam ni nooy lépp bis bi ñun bis bee suñ lépp ni ngeen ñu ko jàppale ànd ak seen mag yu baax yi yàlla na sax dàkk ba nu ko borom bëggee muy ki ngeen wuutu jëmmam suñ borom defal leen ko nu kawe seen njort nu kawe njort moom itam suñ borom dool li ñu ngërëmam ya foofee ci barsàqul moom i noona xolam ñu baax ñëpp seet na ci yéen lii mu teg ci seen loxo yu bari amoon na ñaggi-ñaggi xool waaye xamuñu yoon wi moom daraam du deltu ginnaaw lépp yoon wi kanam lay jëm daa daaw ak ren bis bi doo leeku na ci fànnam yëpp ci saayir si ca baatin baa ko raw kon sëñ Ngounda jërë jëfati nee na jëru kàddu yi ndax baat bi jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall nee kàddu yaa ngoog sëñ Saliou jërëjëf Fall moom da si ama suwaa daay mel ne li nu xaw a tax a naaje sëñ Bas mi damaa woo ko ñu ngi ñëw de waaw sëñ Ngounda sëñ bi nee jërëjëfati rek kàddu yooyu mu joxoon Cheikh Moustapha mu la ko jottali la ko moom day dara desu ci mat na sëkk rafet na lool waaye ñu ngi ñaan ci barke borom bis bi muy Cheikh Bassirou Fall alxuraan yàlla na ko su borom dool lii ngërëm ndax bis bii bisum ngërëm la kon nag yàlla na dool li ngërëmam yi bu baax a baax te ngërëm yooyee mu am nag mu taas ñu ci barkeem ba mboolem lislaam bi ak jullit yi ak murit yi sama borom defal leen ngërëmul yàlla ndax ngërëmul yàlla rek moon tax a jug suñ ko amee am nañ liñ taxoon a jug kon yan nañ am ngërëmul suñu ci ci barkeb Cheikh Bassirou Fall alxuraan bis bi nag Fall yal nañ ko yàgg bokk di ko taxawee cen am wér gun ko mën a gën taxawoo lool ak mu nekk nanu dàqal man weeso ci barkeb sëriñ bi nee Fall jërëjëf ginnaaw bis bi daa xat nag nee da doon ba nga gis ko mu dellu fee toog ca jotaay ba waaw sëñ bul ne waaw bul ni déet sëñ Fallou la wax moo tontu boppam bopp du am ñaari làmmañ bul ne waaw bul ni déet tàllal loxo yi ñu doon la jox ko say loxo waaw sant nga waaw waaw waaw sëñ Cheikh Moussa da ko ni bul tontu ndax kàddu yi nga doon dégg mooy sa tontu waaye dafa diis mu ni faal nu may def munu maa ñàkk sant kon ñu déglu sëñ ko doomu sant nee sëñ bi faal ñu lay sant bu baax te it di dalal sunum xel nag ndax dalal ngeen suñ xel ndax amoon nan njàqare lool nag comme nii ko Cheikh Moustapha waxe bi sëñ Basiiru Fall nelawee amoon na njàqare lool nag waaye njàqare loolee de seen jëmm yi tax na sunum xel dal bu baax a baax ndax taxawaay boo xam ni dafa rafet rafet goo xam ni ci gépp fànn nag billaay Fall guddeeg bëccëg bi su seen waxtaan ba démb rek ci mujj te it sëñ Fallu dafa am lu ma la waxoon. dama ne woon dee ñu digal di ñu tere. Mhm, baax na Fall waaw na ñaan rek jërëjëf Fall waaw. ndax wax na ni mi ngi ñaan ci sunu borom. mbir mi ni mu dox ma ñu ci loxo sëriñ bi. mu ci lool. nee na mi ngi ñaan mu yàgg ci lool Fall. njaboot gi tam. lan déglu njaboot gi tam. li seen maam Cheikh li seen maam Cheikh Ibrahima defoon. li seen maam Cheikh Ibrahima Fall defoon. nangu te nangu dogalu yàlla. te nangu dogalu bi yàlla ba. topp ci yow bu baax a baax topp ci bu baax a baax Fall ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dagaan sunu borom Serigne Bara ne mi ngi ko dagaan sunu borom subhanahu wa taala te am nañ ci yaakaar te am nañ ci yaakaar daaw bi ñu ne yëpp yëpp ngi ci loxol sëriñ bi ne daaw bi ne lépp lépp nañ ci loxol sëriñ bi bëgg nañ ci lool sëriñ bi ne mi ko déggee bëgg na ci lool Fall yàlla na yàgg yàlla na yàgg ci sa loxo kon sëriñ Gunda sëriñ bi nee na yàlla yàgg ci sa loxo lool taalibe yokku lool taalibe yokku lool boole ci barkeel boole ci barkeel nag dafajal doomu aadama seen aajo dafajal doomu aadama yi seen aajo yëpp yàlla ko yàlla def yàlla ko yàlla def ci taalibe sëriñ bi ci bi ak yeneen ak yeneen yeneen yeneen jullit yàlla yëpp yeneen jullit yàlla jullit yàlla yi kon loolu mooy kàddu yi sëriñ Bara Fall rahmaani eh, ñoo ngi teew fi tey ci pencu maam Cheikh Ibrahima ci biir kër Serigne Touba eh, teew fi nag teewaay boo xam ne yàgg naa am eh, ndax fii ni ko góor a waxee léegi miin miin nañu ko defe naa kon ñuy nuyu sëriñ Gunda mi nga xam ne moo fi toog toogaayub sëñ Basiiru ak sëriñ Basiir mbokkam mi tey sàkku nuyoo boobu ñu jàllaleel ñu ko ci sëriñ am Amdi moom mi nga xam ne mooy kilifa mooy kilifa ñëpp euh, ñun nag suñu ñëw fii maa ngi ànd ak sama rakk jii di maam sëriñ ak sama rakk jii di sëriñ Modou. ñun ñu bokk sëñ Abdou Lahad ñu ànd teew ci bis bii ngir ni mu toll ci noonu ndax nit ki nim la tollalee ci mbiram noona rek nga ciy toll saa boo xamee ne ñu ngi waaj bis bii sëñ Bas mi dana ma woo xamal ma bis bi yëgal ma ko soññi ma ci tamit nag ndax xam na ni bis bi toll ci man xam na itam ki doon def bis bi ni mu toll ci man ndax lu lépp ci kanamam la mooy ni nga ko waxee léegi ni ko sëñ Ngunda waxee léegi fii eh, defe naa ñëwal nañ fi sëñ Sidi Muxtaar lu mat juróom-ñetti at kon bokkut ak ñëw yi ñu fi xam dañ ko fee ñëwal suñu bopp ndax waxuma sax sëriñ Basiiru waaye ñoom ñii yàlla boole nañoo yàlla boole nañu yàlla boole nañu ko lëre goo xam ne war naa tax nu jóg kon rawatina. Euh, sëñ Mbàkke fi fi fi fi ñu jeexale rek fi sëriñ bu ñaan ni ni ñu baaxoo def di dénk nit ñëpp rawatina bokki taalibe bi ñu sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey sax ci booloo nekk benn sax ci muñ ak muñalante te te nag xam kan mooy sëñ Tuubaa ndax damay wax ni ñun newuñu kenn moo gën ki ki gën kii waxuñu loolu dañ ne ni sëñ Touba def ban teg ko fi ni ko teg keneen ku dem defi lu mel ne lim def boo ñëwee itam nu def la nii waaye gisagun ko ku def li sëñ bi def kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp ngeen dénk daal muñ jaamu yàlla liggéey booloo nekk benn te sax ci njub tey wax dëgg nag ndax bis dina ñëw boo xam ne loolu wax dëgg du fa am njëriñ asalaamaaleykum sëñ Bass sëñ Bass sëñ Bass Gaye sëriñ Serigne Mouhamadou Mountakha yal na fi yàgg lool te wér yi mu mottali ko ñu fekk ko taman cee jëf noonu lañ koy ñaanale Serigne am di Modou Moustapha Fall mu Serigne Modou mu soxna Mbenda mi toogee jataay maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi lool te wér ndigal yàgg jógee kër Serigne Touba dugg kër Cheikh Ibrahima Fall ñu yàgg koo jëfandikoo tam kattan guñ ci jëfe waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ Cheikh Fall jokke mi nga xam ni mooy xalifab Serigne Bakke Fall. mu yàgg fi lool te di ñaanal sëriñ Gunda Faal mu baax mi mu yàgg fi lool te wér yal na nga fi yàgg faal euh, ndax taxawaay bi mat na sëkk am nañ ci firnde woy jur wa yàlla moo ñu saraxoon mu bëggaloon ñu boppam muy sëñ Bass alxuraan ci yërmandeem loolu boole ñu ak sëriñ bi muy ku baax kook sëriñ Bass ci boppam moo daan wax ni sëñ Gunda yàllaa ko yoral boppam te yàlla ku mu yoral boppam yoru nga te damay wax toujours ni mag ñi ku leen matul doo leen doon kon faal yàlla nang fi yàgg te wér di ñaanal Serigne Aboul Baraka mu yàgg fi lool te ni ko sëñ Gora Njaay mi waxe sëñ Abo yàlla moo dogal moo am ab cër ci kër Seera Faal amub cër ci kër sëñ Touba waaye di ko ak bokk ñor nag di ko kóllëre ñor di ko ak taalibe ñor mu yónni leeram gu sell gii di Cheikh Ahmadou Nil Fadal Mbakke nga xam ni moom it daf ko yónni ci këram yónni ko ci kër ay maamam waaye yónni ko ci kër ay nijaayam ndax ku ne xam na ni maamam Cheikh Mouhamadou faat ma moo njëkk a jox boppam Seera Fall keroog ba mu ko koy jox Cheikh Ibra xelam daa ci wëri sëñ Touba mu ne ko boo ko gisee nooy def mu ne ko sukk sama ñaari bëti woom jël addiya jox ko jébbal ko sama bopp mu ni ko man jébbal naa la sama bopp bala ngaa gis kookee mu ni ko moodu yaa ngi may bëgg a nax de waaye damay boole sama ruu ak sa gas jébbal ka may wër ba gis ko jox ko sama bopp ba mu demee li tax sëñ Tuubaa yemut ak dara yaaral xafaay bi ay neen xal bi saahiratan kamaa yushaahidu maa tahtal hakiinaati daf ko nuyu ni ko ana sama gi Ahmadu mu ni ko ma nga fa mu ni ko boo ku baax la de waaye boo demee foo dëkk na la penko muy maam Modou Fall Fatma doon maam yi Serigne Fallou mii kon dafa ñëw ci barabam sëriñ Ngunda Cheikh Abul Baraka ni mi ngi ànd bis bi ak yow nee na di ci am mbégte bu baax a baax di ñaan ci barke Cheikh Madunil Fadal jataay bi yal na sax te yàgg lool te woyof toy suñ borom kattanal la gëlëmal seytaane ci say mbir ba du ci am ndam mukk ni ko Serigne Basiiru téye ba liggéey bi yegg si fii te nga wuutu ko ci. te diiru ak nekk am nun ñu am lu ñu ci xam mosoo bëgg sa daray bopp mosoo wutub cir mosoo wut daraja musóo sàkku dara lu dul ngërëmam daanaka képpaaram sax bu dul ñëw siyaar si joxe addiya daawoo fa ñi ñimee xand ngir wormaal jëmmam jooje loolu rek la yàlla fayee jataay bi tey kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Amadou Khadim yal na jataay bi seddu guy ta sax bis bi nag day bisum ngëneel di bisum ngërëm di bisub pajuk aajo di bisub yëkkatiku di bisub xettaliku ndax ki tax ñëpp jariñu ci sëñ Touba nga xam ne ku sa bopp féete kaw say tànk féete suuf ameel nga njukkal Cheikh Ibrahima Fall Lamp ndax sëñ Moussa dani wax nañ ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ ba lëm mbiram ba kenn du mus ci baatinam loolu ca bis ba ñuy texe man yi man ma teg ca sama yoxi bopp ni kon texe da dul am bu Cheikh Ibrahima ñëwul woon ba wan ñu sëñ Touba ku ñëw da nga ko réccu te ku ñëw da nga ñee Firawna waaye Cheikh Ibra ñëw gi mu ñëw ba wan ñu sëñ Touba tax ñu jëriñu ci sëñ Touba war naa tax ku mën a doon ci adduna ngay sant Cheikh Ibrahima Fall Lamp te bis bii bisum ngërëm la muy bis bi Cheikh Ibrahima Fall jote ngërëm ci sëñ Touba kon bis la boo xamante ne bii ñëpp a ko war a màggal kon sëriñ boo nee na mi ngi koy ànd ak yow yàlla dafa dogal nag sëriñ bi sëriñ bi yónni ko ngir mu ñëw ci yow war fee jógee dem ci yeneeni barab. yoo xam ne ndigal lu mel nii rek la waaye nee na moom ci boppam it mi ngi ànd ak yow bis bi di ñaan ci barkeb sunu maam ju sell ja Cheikh Rafal barke seelu Xadim yàlla na sax te yàgg nee na di sant ci sang yii mu fi fekk di seexi Cheikh Ibrahima Fall ndax seere la ñuy doon ci jataay bi ndax kat dégg nga ah, sëñ Moussa ni ab seet morom yaay topp ma sëriñ murit yaay topp ma kon bu ñu ñëwee fekk fi sa njabootu bopp ñuy ñoo xam ne kenn ku ci ne. la ne ca samaam si Ibrahima faala ko ci def ci barkeb sëñ Touba ñu fekkee jataay bi sëriñ bi nee na loolu mi ngi ci sant yàlla di ci gërëm bi ci bég bu baax di ñaanal soxna maam Boussa Fall moom sëriñ Modou Falilou Fall nangu ndigal murit bu mag boobee nga xam ni moo waxoon ni ku munta jëlee sëriñ bi bar sàq ba ci sëriñ Mourtada liggéeyal leen ba ñu gërëm la faat na man Modou Fallou ma am nga am li ma am ndax kook sëñ Touba la dalal baa keneen ku ku ku la ko dalee ci sëñ Mourtada ba sëñ Mourtada mujj ku nga làq ngërëmam kon moom it bu fi leeram teewee seere la ci kon soxna maam bu sa sëriñ bi nee na it mi ngi lay seereel ndax ja toog nga fi jataay Seex Abul Baraka kon bu ko defee ñu wàcce sunu kaddu euh, sëriñ bi moo moo def ab yónnee fas yéenee ànd ak yow jataay bi euh, di jéglu baax ci kaddu yi ndax sang yi fi teew day ndigal waaye sëñ Tuubaa dañoo jàngal taalibe ci kanamu sëriñam dafa war mel ni am néew bu ñuy sang te néew du yëngu waxumaa di wax waaye nag ndigal rek moo tax ñu yëkkati suñu kaddu di tuub di wàcc foofu suñ kaddu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sant nañ baax boo demee daal sant nañ sëriñ bu baax a baax naan moom fii daal moom lañ nekkal nee daa ko sëriñ ko ci serafal moom rek lañ fi nekkal ndax moom daa boole ñaari waaye cër bi da cëpp doole da cëpp doole kon moom rek lañ fi nekkal sant nañ bu baax tarkala tarkal day wat day wat gisu ko té té moom jóg amin nangu leen ñaan amin teel micro yi amin faajara góor góor faajara sëñ Basiru nag daa doon koo daa doon kenn koo xam ne daa doon ci fàggatu fi sëriñ Tuubaa muy sëñ Basiru ci fàggatu fi sëriñ Tuubaa sëriñ rek moo ko am kon nag li ñu koy mooy yàlla guddal aw fanam te wéral ko ba naan li mu naanal Sëñ Tuubaa nga xam ni yoon wi mun cee ñàkk ndax yàllaa ko dogal ñu ngi naan yàlla dëbb ko kàttan te musal ko ba fi mu bëggee yóbbu yoon Sëñ Tuubaa mu teg ko te te sëñ Bass day sagub àdduna bépp euh, ndax démb rek yónni na fi teraanga joo xam ni ñun lool ñun lool ñun la waroon ndax euh, diggante kër Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall euh, waa kër Cheikh Ibra Fall war a jëf di jëf doy na sëkk. waaw waaye nag lu ma seq sëñ bi ci moom la jaar. waaw waaw sëñ Bass mi nga leeral ne lu mos a seq sëriñ bi rek ci sëñ Bassirou Mbacké Fall ci la jaar. ci moom la jaar waaw waaye ñoo ngi lay sant. nee na mi ngi rafetlu li ngeen ànd ànd bi rafetlu na ko lool. alhamdulilah alhamdulilah. waaw moom dañ ñoo ngi sant bu baax rek sëriñ bi sëñ Guna ne ma sant bu baax te dalal suñu xel nag suñu xel daal dal na nee na xelam dal bu baax ci yow Mbacke ndax bi nga xamee ni sëñ bi bàyyikoo na fi nii nga xamee ni sëriñ bi bàyyikoo na fi wax dëgg yàlla amoon na njàqare lool yàlla amoon na njàqare lool ci ni sëñ bi toll woon ak na meloon ci nit ñi ci ni sëriñ bi tolloon ak mel ci doomu aadama yi ak ni ko ni ko nit ñi defoon ak ni ko nit ñi defoon amoon nañ ci njàqare lool amoon nañ ci njàqare waaye seen jëmm yiina nag tax na waaye seen jëmm yi mbàkke tax na wax dëgg yàlla jaax jaaxaleetuñ dara wax dëgg yàlla mbàkke jaaxaleetuñ dara dara dara keroog bañ agsee ci yow keroog na agsee ci yow wax dëgg yàlla nanga nu def nanga nu def def nga nu sa bopp def nga ne sa bopp mbakke te jàpp ne yow sa alal daal jàpp nga ne sa alal lan daal te dëgg la mooy sa alal lan loola neex ci nun lool loola neex ci nun lool war noo jafe nag te jafewul war noo jafe mbakke te jafewul nag li nga fi yónnee démb li nga fi yónnee démb wax naa ko suñu wax na ko suñu basiru cokke ah, lii de moom daa diis si man ni ko ah lii de moom suñu ko doon diis ci nun lool ñaan gi rek laa soxla woon ñaan gi rek laa soxla woon laa ko wax gis naa nag ba nga yàgg nga ko jox sëñ bi yàgg nga ko jox sëriñ bi ànd ak sëñ bi bis bi ànd ak sëriñ bi bis bi loola nag loola nag ñun ak ñaan rek lañ ci doon sàkku ñun ak ñaan rek mbàkk na ndax su ngeen rek ndax bu ngeen ñaanee leen bëgg lépp am leen bëgg lépp mbàkk waaye nag lu waa bàyyi ko ci yéen jëm si nun loolu moom loolu moom ci nun la war a ko ci nun ñii la war ko nun waa kër Serafal ci yéen jëm ci yéen jëm ci yéen kon nag li ci yoon wi kon li nga ci yoon wi sëñ bas ak liggéey bi nga ciy ci ñoo ñaanal baax rek sëriñ ko ne mu ngi ci ñaanal ba baax nga àggale ci nun lool sëriñ bi dénkaane woon ko sëriñ bi dénkaane woon ko waxoon ci lam ci bëggoon lépp waxoon ci lam ci bëggoon lépp looloo tax looloo tax mu amoon tiis ci nun lool mu amoon aw tiis ci nun lool waaye nag jàppale ngeen nu ci nag waaye nag jàppale ngeen nu ci bu baax a baax ci ci ñaanuk baatin ci ñaanuk baatin ak saayir ak saayir ba laanaka dañoo tiim rek ba daanaka doo tiim dara loolu yëguñ ci dara yëguñ ci dara dara dara sëñ Bass Fall mi itam sëñ Bass Fall cokke mii moom itam bi fi sëñ bàyyi ko léegi bi fi sëriñ bi bàyyi ko léegi lépp lu ko sëñ bi joxoon mu yor ko lépp lu ko sëriñ bi joxoon mu yor liggéey bi di ko doxal ci kër gi dama ko bàyyee ak moom dama ko yëkkati jox teg ko ci loxo mu ni ko nañ ànd liggéeyal sëriñ bi ni ko nañ ànd liggéeyal sëriñ bi ndax liggéeyal sëriñ bi rek a fi nekk ndax liggéeyal sëriñ bi rek a fi nekk ginnaaw sëriñ bi fi nekk ginnaaw liggéeyal sëriñ bi fi nekk sëriñ bi rek te xuloo xeex moom foo ko dégg te xuloo xeex foo ko dégg yàlla moom nekku fa moom yàlla nekkul foofa de waaye yàlla rek kon nañ ànd bi liggéeyal sëriñ bi moo tax ma daal di fabaat lépp teg ko moo tax ma noppal na ma nag waaye mbàkk ma lay ni sëñ bas noppal na ma de ndax man de sonnatuma dara dara dara ba ko tegee ci loxoom ak léegi wax dëgg yàlla rek lépp moom noppalu naa noppalu bare bari kon moom itam nag ma ko ñaanal kon mbàkke ne nag ma ko ñaanal nag bu baax rek bu ko yàq ànd bi dara bañ ko yàq ndax sëñ bi boole woon diisoo maa moom soo réeroo dara ci diggante ak sëriñ ba ba léegi nag ba tey jii nag ba léegi ba suñu jonne tey jii kon nag sëriñ bi ñoo ngi ñaan daal nga kon nag sëriñ bi ñu ñaan nag waaw sëñ Issa Fall doomi sëñ bi la waaw doomi sëñ bi mooy sëñ ñoo ngi lay ñaan daal nga yàgg fi sëriñ bi dane mi ngi lay ñaanal sëñ Bassirou nga yàgg fi lool Mbàkke ndax ndamal yoon wépp nga nag ndax ndamal yoon wépp nga ku la bëgg a gis gis la ku la bëgg a gis Mbàkke gis la te yitte nit ñi rek te yitte nit ñi rek Mbàkke moom rek ay sab coono nag mooy sab coono de foo ko dégg rek foo dégg sëñ Basiru Mbàkke rek nga sol saw daal teew fa kon yoon wépp sa alal la yoon ko nag waaye nag jàpp nga ko de def nga ko muy sa alal def nga ko mu doon sa alal kon yàgg fi na ko sa borom def yàlla na ko sa borom def na na suñu xel dal na jërëjëf mm. baax ah sëñ bi li ma na lool ci man te dis mosuma koo def de xam naa ma <laughs> jéem koo def rek waaye mi ngi nuyu ci kat turu sëñ bi di sant bu baax di leen jotale ak nuyoom di ko tekki loxol sëñ mu nam yi mu teg mu eggaleel ko ci loxol mu am di mënu sëñ am di mënu fu saal ak sëñ Cheikh Cokke ak njabootu ak kilifa yëpp di leen xamal ni sëñ bi moom lii rek a yéeneem lii rek la mës a bëgg te fu fu ñu ko gisee ko gisul rek nekk la nekk mooy mooy lépp sëñ bi mooy tànk la sëñ boo xam ne mooy tànkam mooy bëtam mooy làmmiñam mooy léppam ca rek la nekk bu ngeen ko gisee fiit bu ngeen ko neppee gis fii mi feneen di def lu mel noonu <coughs> di def lu mel noonu kon nag ñu ngi sama wax dëgg yàlla damaa mënut mënut <laughs> damaa am kii waaye sëñ bi daal daa am ngànt ba mënut la yëkkati kàddoom waaye mi ngi leen sant bu baax di leen ñaanal di ñaanal seen liggéey seen jëf gii ngeen yàgg koo jëf te sëñ bi nangu lépp ki dara gi sëñ Tuubaa ndax kii ndigal ngeen ko teg. te it seen wéyjur bu baax ñoo am moo ñoo ko àndoon ba nëgë ni léegi mu ne mu dem mu des feeg yéen lim ci mën lépp mi ngi koy def yéen bu leen tiit dara ku am sëñ bi am nga lépp te am ngeen sëñ bi sëñ bi. amin amin Mbakke amin raayo leen tamay yoon sëriñ bi ñaar yoon baax na jot sa bopp ne daal fay bopp Bismillah.